dama ne ni laaj Amadou Ba nee na ndax ko fal premier tour le 25 janvier déggu ma leen de Amadou Ba nee na ndax dangeen koy premier tour. maa jiite mouvement politique di def social politique bu tudd alliance wallu askan wi ñu koy dàkkantale AWA AWA. ñëpp xam ne doomu aadama su jàqee dafay dellu ci bopp ci doomu awa ñu ñëpp ay doomu aadama ak awalan la mère de l'humanité kon nit nit ay garabam tey jii nag mouvement boobu nekk Sénégal nekk ca diaspora ci sud France surtout nekk fii ci Touba mu ñëw fi pour def fi lii ma dalal nag wax nan awma seen ngërëm dama leen di bàyyi sunu maam yi baax yii ñu fayal ma leen muy sëriñ Abdou Karim mii sëriñ Ibrahima yi góor a ka kar lépp soxna Amar ñi nga xam ni soxna Mbène Amar mi nga xam ni sonn nan ci ak ñi liggéey ci suuf ak ci kaw yëpp xam naa lépp kon yéen waa Touba kan xam leen ni li ngeen seq ak diina ji ngeen sama waa kër maam mu yéen waa tund wi fa yaakaar di ko fa am te yaakaar boobu tasul ngëm leen li ngeen yaakaar ci politique ci man dumale leen ko xañ bu leen ni li ngeen gëm ci samay maam Cheikh Moro Kane sëñ Modou Kane ba ngeen sàkk ko ci ba yëg seen bopp bu ngeen ko yaakaaree ci man ci politique yaakaar du ko tas man ragaluma ko ndax ndaxte yàlla damaa teel a jox sañ-sañ ma bëgg jiite ba may elew ba léegi ma xeex di ñafe te école primaire ba ma nekkoon ànd ak ay nit yoo xam ni seeni tur min ngeen ko ca Cees ma nekkoon na ñoom ci sa Malick Sy di ñafe tey jii nga leen ñu nekk ay kilifa ca Thiès ñu nekk ay ministre gouvernement Macky Sall ak ci feneen ak feneen ñu am ay responsabilité doon ay nit ñoo xam ne yéen dégg fu ne maag ñoom la woon kon moon leen man su ma mujjee mujjee garaawul ndax man taalibe la dama am patience ndax sama maam ba muy liggéey ci Seera Fall ba muy liggéey ci Serigne Touba liggéey ba dafa yàgg te mett na ba nu libéré ko ñaanal ko mu am li mu am tey kon tey politique looloo tax ma ni dama koy tarbiyu pour wax ak Cees waaye ak yi tax man nu ngoo sonn man damay wax ni damay tarbuyu politique ndax su ma ko tarbuyoo ba mokkal ko ba ki may ñaanal ñaanal ma ci ba nu jox ma lenge yi ba ma téye ko doxal askan wi déet ñu sonn bisa ngi ci bisi damaa bore dama yor di koy taalibe damaa yor damay taalibe sëñ Tuuba damay taalibe sëñ Sëñ Ibra Fall dama yor di koy gor ni sëñ Seexu naa kan ak sama nijaay sëñ Mor kan kon ñun jéem jéem ba fi xool xool ba su ko defee ci politique la tey président Amadou Ba moom laa jàpp man maa toog Sénégal toog ci émission ak Maodo Faye demaat ci yeneen plateau boobu Macky Sall tànnagul ma xamal leen ñi leen ki nu war a tànn su dee plan A la moo war a nekk Amadou Ba. bu dee plan B moo war nekk Amadou Ba bu dee plan C moo war nekk le chef du gouvernement bu dee plan D moo war nekk ki dëkk Ndakaaru su dee plan E moo war nekk économiste bi su dee plan F mooy ki yor xam finance kooku mooy Amadou Ba ba ma waxee la may wax yàlla noonu la ko dogale te looloo am tey Amadou Ba ñuy tiital kon su ko defee yéen waa Touba Kane dama leen laaj Amadou Ba nee ko fal premier tour incha allah le 25. état moo la fi yebal. am na loo bëgg ñoom am na lu ñu bëgg. kon nag bëggante la. kon nag sëñ Ousmane am nañ ci yow yaakaar ndax fi nga bokk. am nañ ci yow yaakaar ndax sa jikko ak sa yar jàngalin ñëpp war a jàng waaye wane woo ko benn yoon lu nit war a amit am nga ko te wanewoo ko benn yoon bokk nga fa ñëpp bokk te wanewoo ko benn yoon kon nag loolu jikko ju rafet moo ko man kon nag yoon wi nga nekk continuer ci te xam ne li nga war a jot sëb cër incha allah da nga koy lu ñu wax suba la wala gannaaw suba la waaye incha allahu di ko jot parce que yéene nañ la nga dem ba nekk maire cees boobu te moom la ñu bëgg. dañoo bëgg buñ ci eggaatee nag nga taxaw parce que nag loolu muñ moo ñu gënal te mooy suñu avantage parce que région cees la ñu nekk te dañoo am cër ci réew mi te suñu cër nag gëm na ne yow mi yaa na ko mën a andil kon nag dañoo bëgg prochaine élection yu nga présenté wu nekk maire de Thiès. mag la sama xarit la jàmbaar la lépp loo xamante si lu naan lu koy desal ginnaaw la rek muy taxaw di xool ñi nga xamante si danoo làpp mu leen di làbbanti tey fàtte boppam lii si la nekkee Thiès man dama see am lu ma wér am ci lu ma leer nañ moo tax ma di ko wax du ma jay nit mukk wala ma koy wax wax joo xam ni tey jii mbooloo tax ma di ko wax wala bëgg lu ma am ci moom moo tax ma di ko wax Ousmane looy defal waa Thiès bul fàtte waa Touba Kane bu ma nee Touba Kane nag waxuma jëmmi dëkk bi waaye dëkk li ma la nga xam ni mënuñoo dem saa Touba Kane mënuñoo dem saa ñoom dee leen fàttaliku fa nga nekk di France yàlla dimbali fa nga am fa baat ndax moom mi am na ay jamono dañ koo bëgg na def maire Toulouse pour mu nekk candidat mu bàyyi ko fa ñëw Thiès Nord di fa nekk candidat kon kooku kon patriote am kenn wérante wu ko dëgg nag boo fa nekkee bokkoog ñu weex ban dem ba xalaat la ne la du na leef candidat pour nga nekk fa maire nga ne ko fa ñukku ñëw fii kooka xaalis ak alal ak daraja taxul muy def dafa ñëw ngir dimbali nit ñi ndax lépp looy liggéey ci réewum jàmm rek liggéey ko fii sam réew moo gën France gee mu nekk ay tubaab lay employé di leen liggéeyloo kon moom gàcce ngalaama sagal nam réewam sagal na ay maamam waaye sagal na ay mbokkam lii laa ne woon dinaa leen ko leeralal ndax coow li dafa bari te nit ñi duñu xam dëgg dëgg li waral wax ji ak li waral jotaay bi jàppanteek moom dafa war mu far faneen ak mu bañ a far faneen budul dara jëmm ji moom buy dimbali du xam ku far ak moom ak ku farut ak moom kon jigéen ñi bis mi ki tey présenté naa la jigéen ñi commune bi yëpp muy Touba ak li ko wër nga bàyyi leen xel la ngay defal jigéen ña nga xamante si nii tey jii si yeneen dëkk lañ nekk ba teraanga jooje kenn ku nekk di ko wax ngay financer ay groupement dee leen ci boole man lii mooy samay wax lii laa bëgg te xam naa di ko def